Abdou Ba الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginaaw bu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi suñu xutba tey mooy lan moo war a nekk yitte ab jullit ab jullit lan moo war nekk yitteem lan moo ko war a ñor lan moo war a nekk ay bëgg-bëggam moom kii di jullit yitteem yépp ci àdduna ak jubluwaayam lan la war a doon mooy mu yëg ne yitteem li ci gën a rëy mooy ibqaa'ul fahmi lima an alzamahu llah min ittibaa'i ma amara wa intihaa'i amma li gën a rëy ci yitteeb jullit ci kaw suuf mu yëg ne dafa war a xam comprendre bu baax lan la ko yàlla sant ci kaw suuf lan la yàlla bëgg ci moom ana nan la war a def ba topp santaane yi yàlla sant ko waaye ana nan la war a def ba bàyyi tere yi ko yàlla tere lii moo war a nekk yitteeb jullit himmatuhu yitteem yépp mooy mata ax tamu suura naka laay xëyee jàng alquran ma fexe sax lu mu tuuti tuuti tuuti mu war a nekk benn saar mata astarni billah naka laay def ba yàlla rek doy ma leneen dootuma yittee lu dul yàlla mata akunu min al muttaqin naka laay góorgóorloo ba bokk ci ñi ragal yàlla min al nan laay def ba bokk ci ñi rafetal mata akunu min al naka laa war a def ba ñi wakkiirlu ci yàlla ma bokk ci ñoom lii moo war a nekk mbokk yi yitte ab jullit naka laay def ba topp santa euh, santaane yàlla yi bàyyi tereem naka laay def ba saa xëyee sama bët yi ma teg ko ci téere yàlla bi même bu dee benn saaru alquran ma jàng ko naka laay def ba yàlla doy ma leneen dootuma ñor yàlla laa yittewoo naka laay def ba ma bokk ci ñi ragal yàlla naka laay def ba ma bokk ci ñi nga xam ne seen jëf yëpp a rafet naka laay def ba ñu jël seen bopp jébbal yàlla di lu ci yàlla ma bokk ci ñooñu lii nag mbokk yi programme la boo xam ne fokk nga am conscience islamique pour mu nekk ci yow la budda min al wa'yil islami fokk nga am compréhension islam fokk nga am dégg-dégg ci sa diine fokk sa diine ñor la foog nga xam yow lan moo war a nekk sa mission ci kaw suuf pour soo bëggee taxaw taxawaay yii ndax loolu rek la mu daal di jeex war na bokk ci programme bi mata akun min alxaashiin naka laa bokkee naka laay def bokk ñiy toroxlu ci yàlla tabaraka wa taala mata akunu min alsabirin waaw man kañ lay bokk ci ñi muñ mata akuna min alsaadiqin kañ laay bokk ci ñu dëgguñi mata akuna min alxaifin naka laay bokke ci ñi ragal yàlla ay laaj la yoo xam ne mata mata waaye toog yaccaaral yaafuus du la ko may tey ñun ñëpp gëm nañ ne ku bëgg a bokk ci borom alal yi nooy def foog nga takku yenn saa yi sax nga gis ku bàyyi dëkk dem dëkk tey gaal yi ñuy gis gaa yi di xuus ak leneen ak leneen nga gis gaay def almuxaamaraat ay sacrifice pour dee yenn saa yi sax nga dégg ay slogan yoo xam ne waa ji koy wax alal ju bari walla bàmmeel bu sori mooy naa am alal bu bari rek wala sama bàmmeel sori walla loolu ni nit ñi tey lenn ci ay nit àdduna yitteel leen am amu àdduna yitteel leen noonu la doomu aadama bu gëm yàlla nekk ab jullit toog yàlla ñor ko diineem ñor ko ëllëg mu war a texe ñor ko mu tëral programme doo toog rek naan mata akuna min alxaasiin kañ laay bokk ci ñi nga xam ne dañuy toroxlul yàlla toog di xalaat rek ak di wax kañ laa ci bokk loolu loolu du la ko may doo toog rek naan mata akunu min asabirin kan laay bokk ci aji muñ yi déedéet doo toog rek naan mata akunu min asadiqin kan laay bokk ci ñu dëggu mata akunu min alxaifin kan laay bokk ci ñi ragal yàlla mata akunu min arrajin kañ laay bokk ci ñi delluwaat ci yàlla mata azhad fi dunia kañ lay dëddu àdduna nag àdduna bi ma topp di daw di jàll fàtte jalla jalaaluhu mi ngi ñëw jël ma ñu yóbbu ma jàll ma tas jàll bi ma jaloon jaale ma loolu fokk nga koy programmer doo toog rek topp ci àdduna di daw parce que àdduna kenn mënu koo dajal soo fi amee benn soxna yaa ngi xalaat ñaar soo amee benn kër yaa ngi xalaat ñaar soo amee benn waruwaay yaa ngi xalaat ñaar soo tukkee dem benn dëkk yaa ngi xalaat déwén nga dem beneen saa yoo defee benn pas jëm ci lenn ci àdduna yaa ngi xalaataat changé montre sax boo ko takkee ba ci yàgg da koy sànni indi beneen yére boo ko solee ba ci yàgg da ngay simmi indi beneen noonu la programme mu àdduna nekkee du jeex moo tax day toog yenn saa yi nga toog laaj sa bopp ci àdduna bi kañ lay dëddu àdduna doomu àdduna doomu aadama ci àdduna du doyal moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam moom mi dégg mbir yi bi ñu suulee nit ci ba armeel yi suul nit ci bàmmeel yi yonent bi tiim ko mu ne doomu aadama ñaar rek moo koy suur ñaar kese mooy suur nit bu njëkk bi mooy suuf suuf dong mooy tax doomu aadama suur doo am alal ba ba suur doo lekk ba suur doo naan ba ni doy na loolu tax ñu ne bu doon reer doy na kon reer yu biig yi doy kon kenn dootul reeraat waaye dangay reer reer reeraat ba ba ngay dee dangay ngay añ di añ di añ rek kon du doy kañ lay doy nag mooy bu la gaa yi wattatee ba ci bàmmeel yi ñu gas ba mu xóot ñu dugal ba léegi doyagul de ñu ñibbi mu am trois jours ñu ñëwaat ñu fekk bàmmeel bi rës sa kaw biir bi toj suuf si dugg si ba mu fees bët yi luqeeku suuf si dugg ci ba fees bakkan bi toj suuf yi dugg ci ba fees gémmiñ gi ŋaang suuf si dugg ci ba fees nopp yi suuf si dugg ci lépp suuf si bloqué ko nga xam ne lépp fees na su keroogee nag la doomu aadama di suuf leneen lu dul li du la suuf moo tax ku topp ci àdduna du daw du dëpp topp ci àdduna du daw du dëpp lu dul ci biir bàmmeel te su boobaa day nekk le médecin après la mort amul njëriñ kon war nga laaj sa bopp mata atazahat fi dunya mata argabu fi l axira kañ laay dëddu àdduna nag waaye kañ lay préparé nag pour jublu alaxira chaque jour ñu jàng alquran yàlla mu ne bal tuhibbuuna al aajila da ngeen a bëgg àdduna ñaata aaya la bal tuhibbuuna al aajila yéen doomu aadama àdduna rek moo leen yitteel ñaata aaya la yàlla wax ne bal tuhibbuuna al aajila wa tazaruuna da ngeen bëgg àddina bàyyi alaxira ñaata yoon ñaata yoon la yàlla wax ne wa tuhibbuuna al maala bëgg alal ju ne xam ne kenn mënu koo nat ñaata yoon la yàlla wax ne kalla ar raahu stagna doomu aadama dafa gaaw a bew ñu ne yàlla yàlla mu ne xam ngeen kañ ñu ne déedéet yàlla mu ne bu gisee am na commencé na am rek nga gis bew te gi commencé doomu aadama war na laaj boppam naka laay dëddoo àdduna nag ba jublu alaxira mata atuub min azunub waaw man sama bakkaar yi kañ laa koy tuub li ëpp ci ñun tey du ñu xalaat sax seen bakkaar bal ñenn ñi sax ne jàpp nañ ne ñoom amuñu bakkaar moo tax ci senegaal léeg-léeg nit génn àdduna nga dégg buñ koy ñaanal kenn du ne yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko lan la ñuy wax lan la yàlla taas ci barkeem yal na yàlla yokk leeram yooyu la ñuy wax lan mooy taas ci barke lu muy tekki jullit bu gëm borom bi tabaraka wa taala amul kenn ku mu mën a doon lu dul am nga bàkkaar amul kenn laa wax kulli ibnu aadam xataa wa xayrul xataain tawaabuun sayduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na doomu aadama yëpp ay defkatu bàkkaar lañ kulli ibnu aadama la wax bàyyul kenn bàyyiwul kenn ki njëkk tooñ mooy sunu maam wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasi fa azallahuma alcheytanu fa axrajahuma mimma kaana fii seytaane tarxiis loo kon doomu adama yépp ay def bàkkaar yonent bi moo ko wax waaye bàkkaar kan moo koy baale yàlla du am bakkaar ba nga dem ci nit mu raay sa bopp ne la baal nañ la wala mu sexal la benn tàngal wala ben tàndarma wala benn booboo ne la baal nañ la dangay ngay jéggulu yàlla yàlla baal la ibnu mas'ud doon na wax ñi mu doon andal law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaari xatta al mawt xam ngeen ibnu mas'ud xam ngeen kam nooy abdullah ibnu mas'ud mooy ki yonent bi joxoñ ne ku bëgg jàng alxuraan na nga ko jàngee moom ni mu koy jànge mooy ki yonent bi wax na ñaari yeelam yi moo ëpp doole ci yàlla ci montagne Uhud moom Abdullah ibnu Mas'ud moomu moo doon wax saxaaba yi mu àndaloon su ngeen xamoon samay bakkaar di ngeen ma dóor ay xeer ba ma dajeeg yàlla kon nag mbir yi lu sew la ab jullit yitteem mooy mata atuubu min azunub kañ laay tuub sama bakkaar yi nit du toog rek naan suba ma tuub jadda zamanu wa anta talab bés bu nekk janq sow xëy fenk ngoon mu sow ñu ne la tuubal nga naan ba suba léegi la ma benn mbokk bu ma àndal mu ngi ni toog mu ne benn mbokkam dafa gaañu ñu koy jullee avant ñu koy jullee mu ne saan jot ñëpp taxaw di julli kooku dooma kooku gaañu ñaari dooma bi moom toog fee ñu ne ñoom duñ julli ñoom dañoo bokk ci mbooloo yoo xam ne duñ julli ñu toog nee di xaar te seen papa moo faatu nit ñaa ngi ci jàkka ji di waajal góor gi tàkkusaan jot na nit ñaa ngi julli ñëpp kabar ñoom ñaar ñu toog nee ñu jullee ba pare ñuy jullee néew bi ñu ñëw taxaw di julli quelle contradiction julli woo farata di jullee néew naka lool nu mu nekkee yow julli woo nga ne da ñëw jullee néew man damay ragal sax ne est-ce que yàlla du mere néew bi sax ndax ñaar ñooñu nga lankal yàlla farata lim la sant lu toll ne fardul ay loo xam ne yéen ñëpp jàng ngeen alquran am na nit ñu dugg safara bi leen waa aljanna laajee anil mujrimin maa salakakum fi saqar luñ tont maa huwa aljawaab qaalu lam naku min almusallin yàlla nee na waa àjjana bi ñu jógee àjjana ba pare dañoo jàkkaarloo kàccoor yi anil mujrimin la yàlla wax ci biir safara naan leen yéen waa safara yéen lu ngeen doon xoole ba dugg safara xam nga luñ tont qaalu lam naku min almusallin ñun dañoo bañoon julli allahu akbar ñun dañoo bañoon julli rapidement léegi yow nga lankal yàlla ne doo julli jullee néew jot loo xam ne fardu kifaaya la iza qaama bihi baat saqata anil axirin nga ñëw taxaw mais nit ñi waroon nañ leen laaj ne leen yéen ñaar ñii lan moo tax julli wu leen loolu mooy nax sa bopp Sénégal ngay gis ku dul julli mu dee gaa Iran di ko jullee te ku julli su ngeen demee ci hukmu salaa bu Seex Useymin su rendee kenn waru ko lekk ku dul julli su rendee kenn waru lekk lim rendi nga dëkk ak yahud wala nga dëkk nasaraan juif walla nasaraan chrétien su rendee yow war ngaa lekk yow jullit bi nga mun nga ko lekk waaye boo dëkkee jullit bu dul julli bu rendee waroo ko lekk jullit bu dul julli suñ ko mayoon jabar ba jabar bi war a sëyi ba oto bi taxaw benn waaye ñëw ne yow xam nga ki nga may jabar ne ah xam naa ko kay mu ne non kooku du julli ñu woo waa ji mu ne man duma ma julli dañuy tas sëy bi ku dul julli bu papaam dee du ko doon moom bu dee papaam du ko doon ku dul julli kenn waru koo suul ci armeelu jullit kenn waru ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm ku julli kenn waru lekkandoo ak moom su ngeen demee ci benn téere bu Cheikh al Khadim Ahmed Bamba day wax ne ku julli soo toogee di lekkandoo ak moom mu ne weeyi weeyi weeyi day génne ay poson day posone lekk bi yow wi lekkandoog moom dalay posone tey ñu toog fii di ko sàggane du ñu xalaat ci gravité def bàkkaar ñàkk julli def gravité bàkkaar wala yéexe ko alxuraan moo ñu wax ne am na ñoo xam ne ñu ngi julli <laughs> te safara lañ jëm kon ku dul julli foo jëm fa waylun lil musallin limaza alladina hum an salatihim sahun fajar day jot ndeysaan démb damay liir ba yegg ci lu ma rusloo dama ko liir ba pare rus mu ngi sama portable ma enregistré benn noddukat moo seetlu jàkka ji muy noddu saa yu ñëwee day fekk benn waay toog mu ñëw taal rajo bi nodd saa yu ñëwee rek day fekk waajoo ko fi jiitu benn bis mu ne ko yow lu tax nga may jiitu fii bis bu nekk lu tax yow chaque jour yaa jiitu jàkka ji mu ne damay wuyu yàlla balaa mu may woo bëggumaa toog mu may woo balaa mu may woo dama koy wuyu ji mu ne du ma toog mukk yàlla di ma woo naan ma ñëwal maa ngi lay doog soxla déedéet mu ne balaa mu may koy wuyu ji su ngeen déggin boobu moom du toog di xaar noddu mu doog a ñëw déedéet nee na moom balaa yàlla parce que noddukat bi kan lay woo yow lay woo kaay julli si moom nee na comme xam na war na julli du xaar yàlla di ko woo naan ko ñëwal balaa yàlla di ko woo mu dem allahu akbar lii mooy pas-pas lii mooy aqida li mooy dégg diine li war ci yow yàlla sant la ko loo ciy xaar da la nga gis koo xam ne bala muy julli ñu jël yàpp léeg nga gis koo xam ne julli ak ku ko rey la yemale te xam ngeen ne islaam li ci ëpp doole mooy julli kon mbokk jullit ji jullit bu nekk war na laaj boppam mata atuubu min azunub kañ laay tuub sama bakkaar waaye war nga wax ne mata arifu niam al mutawafira naka lay toogee ba reconnaître xéewal yi ma yàlla defal an niam al mutawaafira xéewal yi yàlla sëmbërtal sama kaw sotti ko waaw man kañ laay toog nag ba nangu ko soo waxee xéewal ñu bari dañuy jàpp ne ay alal ju bari la xaalis bu dul jeex mbokk yi wér gu yaram gii nga am ndax du xéewal fii tey nga toog ñaata nit ñoo tëdd ci biir kër yi ñaata ñoo tëdd ci hôpitaux yi ñaata ñoo feebar ñaata ñoo tële yow dara dalu la lu tax doo sant yàlla ci xéewal boobu lii may wax tey li tax mu neex ci yéen ngeen koy dégg mooy nopp yey dégg walla su ko nopp yi déggul woon du neex xéewal googu nopp yàlla defal la ngay dégg ndax mën nga ko fay yàlla bët yi li ñuy xool di gis xéewal googu ndax mën nga ko fay ngelaw li ngay noyyi guddi ak bëccëg su fekkonte ne boo nooyee bay tëdd malaaka bi yor registre ngelaw li ñëw ne la ah bismillah facture a ngi nii bopp boo après da ngay fay balaa ngay tëdd fayal ki yor bët yi ñëw ne la li nga yendoo xool facture mu ngi nii fayal ki yor nopp yi ñëw ne la li nga yendoo déglu da ngay fay ki yor tànk yi ñëw ne la li nga yendoo dox dangay ngay fay kon fuñ jëm moo tax xéewal yu ñu yàlla sëmbërtël kenn xamul nu mu toll te xéewal yooyu nag bàyyi wookul ci kenn ku dul yàlla wa ma bikum min ni'ma fa min allah bépp xéewal bu ngeen am bàyyeekul ci ma sàmba bàyyeekul ci ma demba du ñaanu kenn kenn xëcc ko yàlla moo la ko jagleel yow mbindeef mii kon sant ko yàlla mata ashkurullaha alayha ay xéewal yooyu kañ ngay toog ba sant yàlla kañ kañ kañ ngay toog ba sant sa boroom ci xéewal yi mun a defal te li gën a rëy ci jaamu yàlla mooy sant ashukru huwal ibaada sant yàlla nga toog ba reconnaître yow jaam nga mënoo amoo danga tële kon buur bi la mën loo buur gi buur bi la jox bàyyi say moroom war nga ko sant yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam xool leen daraja bu màgg bi mu am ak li ko yàlla wax yàlla ne ko baal naa la say bakkaar yu njëkk ak yu mujj yow Muhammad baal naa la sa bakkaar yu njëkk ak yu mujj te alquran moo wàcc ci moom wax nag wax ko ko li yaxfira laka allah ma taqaddama min zambik wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayk wa yahdiyak siratan mustaqima ah loolu bu ñu ko waxoon kenn ci ñun pilianu or la la gars yi di defal nga tàllal say tànk loxo ndeyjoor 10 personnes ñooy taxaw di ko bës loxo càmmoñ 10 tànk ndeyjoor 10 tànk càmmoñ 10 nga tàllal loxo yi. ku ku la romb ñu ne waaw man haza ñu ne kii la yàlla baal ay bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj waaye yonent bi xoolal li ko yàlla wax yëpp terewul guddi jot. mu taxaw di naafila ba mënatul taxaw mu takk ay xeer ci ndigg li pour xeer yi téye ko yaay Aysa ñëw fekk muy julli ci julli gu metti googu mu ne ko lii lan la yow yàlla baal na la sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj doo toog mu ne ko afala akuna abdan shakura ndax duma nekk jaam buy sant yàlla ah kay xam nga ñun bu ñene la baal nañ la da dem tëdd di nelaw Sénégal sa wiyanomo ɗo a yafama bakkatuji ma a yahay sooda matla 95 pour centmétre leloɗa hen suddoɗa aɗa ɗano ɓe addinma climatiseur kala wiɗo e eh, o ko waɗatani ɓe wi allah yaafimama bakkatuji makko allahu akbar fi sénégal tay kuñ fi waxoon yàlla baal na la wallahi alazim danañ dem usine bi defar matelas yi ñu defar la boo xam ne épaisseur bi boo ci tëddee ci kaw ngay tëmb dinañ la sàng mbàjj moo xam ne ku la romb te loolu duñ ko def ci biir kër gi de ci buntu kër gi lañ koy def ba pare ñëpp toog wër la nag suñ ne lii la kii kan la ñu ne kii la yàlla baal ay ku nekk ñëw ne est-ce raay ci bopp bi diw ci kanamam toog waaye yonent bi moom bi ko yàlla ne baal naa la keroog la gën a góor góorgóorlu allahu akbar ñu ne ko lii lan la mu ne ndax duma nekk jaam buy sant yàlla ixwatal iman nit war na laaj mata ahfazu lisaani kan laay wattu sama làmmiñ bi kañ laa koy wattu mata astahi min allah xaqal haya kañ laay rus yàlla nag dëgg dëggi rus tomb bu war a taxaw bu ñu war a taxaw mooy kersa kersa dafa jeex ci réew mi moom réew mi di Sénégal kersa daf cee jeex takk soo amee tarfatal ayni ci iman saa yoo génnee ci mbedd mi ci patu ngay dëkk ak di yëngal bopp ak di naqarlu saxol ndax li ngay teg bët ci mbedd mi ndax doomu julit yi ni ñu mel ndax julit yi ni ñu mel waaw ñun mun nañu nangu ne Sénégal dëkk julit la wallahi waaye ñiy tukki si di fi ñëw ku fi ne cëpp sa tànk daal ne haza Sénégal alladi asmauhu hum muslimun da ngay benn mbokk rek la ñu amoon yàgg naa leen koo fii benn naar bu war a dem mag ñëw ñu yenn ndoo def tournée ci biir dakaar ba ngoon jot ci place bii fii ñu julli gee ba pare génn fii ay seize teg di noppalu ma ne ko noo gisee Sénégal mu ne baladu shirki wa tabarruj bala du shirk wa tabarruj amu fi 24 heures mu tontu ma tontu boobu kon war nañoo laaj suñu bopp mata nastahi min allah haqq al mata astagil bi aybi naka laay yittewoo samay ayibi bopp ku nekk war nga ko laaj sa bopp ixwaani aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi waxda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu diin walaw kariha alkaafiruun ibadallah ba tey ci yittey jullit bi war a laaj boppam mooy mata aslihuma fasada min amri naka laay def ba sama dund lima ma paase li ci ëpp ma yàq ko naka laay def ba li ma dese ma rafetaatal ko sama dund fi ma jaar li ma yàq li ma ñàkk a def wala li ma def te baaxut naka laay def ba répare waat ko fii nag li tax duñ dabaatal lu tax suñu yàqee sax duñu góor góorlu pour réparer ko parce que réew mi moom dafa am particulier dangay gis caaxaan yoo xam ne chaque jour ay nit di ko organiser fii ku fi teew yàlla baal la jeex na man damay def lu ma neex rek ba weer bi jot wala at boobu jot ma dem teew foofu rek ñu ne ma yàlla baal na la ma dem kon li ma yàq du ma ko réparé julli gi ku julli ñaari rakka la yàlla baal na la li nga defoon yëpp jeex na mooy seen julli fay faat yooyu benn tudd bu ma dem ma fekk benn borom xam-xam di waxtaan di def ay penalty rek mu ko ba mu pare ma ne damaa am kàddu ndax damaa dégg léegi cheikh bi mu ne julli fay faat julli nangam julli nangam ma xamal leen ne julli googu mu doon wax wéerul ci islaam moo ngi toog ñëpp jommi mu ne daf may attaqué ma ne ko bi ngay wax dama la doon déglu léegi damaa bëgg rek nga déglu ma su ma paree incha allah yéen ñëpp yéen a ngi toog nii ku nekk na ku am lu muy wax mu wax. ma ne julli suba kan moo ñu ko sant ñu ne yàlla ma ne moo ko wax ñu ne waaw julli tisbaar ku ñu ko sant ñu ne yàlla fu mu ko wax ñu ne alxuraan. julli takkusaan ñu wax loolu julli timis ñu wax loolu julli gee ñu wax loolu ma ne kon julli juróom kan moo ñu ko sant ñu ne yàlla ak yonent mu ne ma ne ma ne leen mu ngi ci alxuraan sunna ñu ne waaw ma ne ñu continuer julli tabaski kori korite kuñ ko sant ne yàlla ak yonent ma ne mu ngi ci téere ñu ne waaw julli buñ jàppee jant bi ak weer bi kuñ ko sant ne yonent bi mu ngi ci sunna jullee néew kuñ ko sant yonent bi mu ngi ci sunna wala salaatul haaja julli aajo kuñ ko sant yonent bi wala ko fay faat nag ci ban la nekk kan ma ko santaane nekkul ci alxuraan nekkul ci sunna nekkul ci buxaari nekkul ci abu daawud nekkul ci ibnu maaja nekkul ci tirmisi nekkul ci benn téere ma ne ko kon fu ko jële loolu moo lay ne warul julli yi war yëpp moo ngi ci téere sunna yi kon boobu fu ko jële te xoolal liñ la ci wax soo ko defee at yi nga passé yëpp li nga julliwul woon yàlla baal na la ko léegi nag boo déggee loolu nga toog su nit ñi di julli yow nga toog rek at bi yëpp nga rajaxe ko doo julli bàyyi ba giñ ne ginnaaw suba la rek nga daw gàddu sa si jaada booy maa ngi dem fay faat bi ko ata ñëwaat loolu moo ñu indil problème moo tax li ñu yàq duñ ko defar mukk kenn ci ñun du bàyyi dara sax ba fay même weeru koor da ngay dégg yow doo fay sa baru koor nga dégg du ma fayanteeg yàlla man yàlla day sama morom ba ma koy fay dégg nga yooyu ñuy wax caaxaan yooyu man li ah man man man du ma fayanteeg yàlla de di jéem a indi ay wax yoo xam ne waxu ko daanu ci sareet la waaw nañu góorgóorlu mbokk yi suñu diine ab julit mooy koo xam ne li mu yàq ci diineem da ciy góorgóorlu mata akunu anillahi raad naka laay def ba yàlla gërëm ma naka laay def ba yàlla kontaan ci man musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde nelaɗo men mouhammad sallllahu alih wa sallam hutba men hannde wonno holko foti wonde yidde juulɗo juulɗo holko foti yidde holno foti wadde hawo faama ko allah yamirimo ko o daro heen o faama ko allah haɗimo ko o woppa so fini wona himme makko holno janngirta qur'an hay soko simore wotere ko jannga ɗum wona himme makko holno gollirta hawo jeye e hulɓe allah holno gollirta hawo jeye e moƴƴinoɓe holno gollirta hawa wona e ɓen wakkiliɓe e allah holno gollirte hawa wona e ɓen hulɓe e allah holno gollirta hawa wona e ɓen muñoɓe ɗiɗo fof ko namde ɗe ganduɗa julɗo o sofini omo foti namdade hoore makko holno gollirta ɗeɗo golle ha o mo allah allah allah weleemo so allah welama neɗɗo on o malama aduna e lakara hande tan so joom jawdi oɗo o o haali o kaari kaari mbiɗa wela kaari miɗa yiɗimo so tawino ko laamɗo leydi ndi yalti ga télévision o o kaari ko sehilam mbiɗa yiɗimo holko yimɓe ɓe miijoto on ta joni téléphone ma fuɗɗo sonde ɓe wima a malama an a firti holko watta ɗo hoot joni so allah wi min kaari mbiɗa wela kaari holko miijiɗen o makko sen jangi qissa imam ali e seydina aboubacre ko wolde wonno nelaɗo sallllahu alih wi janngo sen fini oɗo drapeau woni drapeau l'islam mami tottu ɗum waaji mo ngannduɗa allah ina yiɗimo nelaɗo allah ina yiɗimo aboubacar wi mi mi meeɗa yidde laamu mi meeɗa yidde nelaɗo ardinami so wona oɗon ñalawma ɓe mbimo holko tagi o on nanani ko nelaɗo wi mo ganduɗa ko allah yiɗi mo nelaɗo yiɗi mo so allah yiɗi neɗɗo nelaɗo yiɗi on on ko holko miijiɗon e makko o wi min pini min juuli fajiri nelaɗo silmini tan o fuɗɗi ƴewde sappe premier o aboubacar wi mbaɗaga hakkunde omo ɓenna yimɓe ɓe omo ara mbiɗa wiya ko min wallahi ko min ha o ari ha gite makko wirtimi o wi wanmi ni rewmi gite ɗe taw mi wona min mbimi kon ko oumar ham saabu takki e saram nelaɗo wirti oumar wirti ousmane ha sappe premier o foof gasi o ruttini guite makko sappe ɗiɗaɓo o sappe o gasi ha jama o gasi nelaɗo mo wiyato o yiyanimo o hoto seydina aliyu woni hoto imam aliyu woni o ɓe wimo o yiyata ɗe musay o wi addanemo bilal ya addananmo deke ko on allah yiɗi nelaɗo yiɗi yo allah yiɗ nelaɗo yiɗa en allahuma ixfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna bada almawt birahmatika ya arhamar rahimin allahuma ya hadi ihdina sirata almustaqim sirata alladina anamta alayhim min annabiyin wasiddiqin washuhada wasalihin gayri almaghdubi alayhim wala dalin ibadallah qumu ila salatikum yarhamukum allah